asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 17 novembre 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb li ñuy xëy tey doore ko mu mel ni ki yëglikaay bi la maanaam démb la ko wutu muy biraseen mel ni ki démb nag lañ doon joxante daal bang ya wala toogu ba boog di lenge ya la ko ku nekk wala ko boog Alioune Sarr jébbal ka nga xam ne moo di biraseen mu war a doxal bu fekkente ne yëglikaay bi di suñu lamb la moom dafa xëy ñëwal ñu ci la nga xam ne nii daal moo fa am wala li fa nekk wala li fa Alioune Sarr bàyyi yëgle cabinet daal bàyyi na fa ay millions trophée ak la nga xam ne moo di ay sées tapis ak benn oto boo xam ne daal bàyyi na ko fa nga xam ne nii moom moo di ca CNC ba loolu daal la bàyyeel ka nga xam ne nii moom moo di Bira mel ni kon démb daal mbir mooma moo nga doon amee fa nga xam ne nii moom moo di ca Léopold Senghor mel ni ki nag Bira Sène moom jàpp na ne fi mu nii daal defi lañ ko lancé boo xam ne jàpp na ne moom moo di defee bu ñu ko lancé mu relevé ko loolu daal moo di wax ji Alioune Sarr ba tey tamit mu ngay wax daal ne li nga xam ne ni daal moo di ngand ngandu lekk yu mel ni ki noonu ak yenn yoo xam ne ni daal yu amul benn njariñ la daa jàpp ne nañ ko tege fële rek te continuer jublu ci liggéey bi loolu daal mooy li nga xam ne nii moom la wax fa nga xam ne moo di ca sunu làmb yemuñu ne comité bi ñu nga nekkoon fa nga xam ne moo doon ci Léopold Senghor foofa moo nekkoon seenub daluwaay waaye léegi nag moom toxu nañu dem fa nga xam ne moo di ci arène nationale mel ni ki nag bira seen moom lëkkoom yu bees yooya dem na si visité ju ko dal di koy seet daal yëglikaay bi di suñu làmb moo xëy ñëw wax nu lu mel ni ki noonu ba tamit mel ni ki Gaston Mbengue ca mbir yooya mu nga foon waaye moom it daal mu ngay dànkaa fu ñi xam ne jàpp na ne ay troubleur lañ maanaam daal ay yoo xam ni daal foon fu ñu nekk rek ñu ngay jaxase que trouble di xool lu yàq yëglikaay bi di suñu làmb ko wax ba tey bu ñu demee ci Leewtoo point net Bira Sène moom lamay xam ne daal nee na teguñu leen fi ndax dañoo dàq jàng wala du ñëpp daraja wala maqaama bu ñu demee ci Leewtoo point ba tey dañ fay fekk mbir yu mel ni ki noonu rek mel ni ki nag Alioune Sarr moo joxe leen ngay moom ko jox koy daal di ko xelal di ko dalal di ko xamal ne daal li am ba des mooy jàpp leen ne yéen ñi ñu fi teg nekkul da ngeen fee dàq wala ngeen raw fi waaye dañ leen yaakaar kon nag yaakaar dañ leen yaakaare mu nga leen di ñaanal daal ñu réussir ko loolu mooy waxi la nga xam ne nii moom mooy waxi ka nga xam moo di Alioune Sarr fa moo di ca Leewtoo point bu ñu demee ca fa nga xam ne moo di record mel ni ki ba tey mbir yooya ñu nga ca ba tey rek yëglikaay ba lam ñu xamal daal nee na daal copie bu set wecc wecc wecc wala feuille yu set wecc amul benn bind wala lenn lu ca taq moom la jox ki nga xam ne nii moom moo di Bira Sène record moo xëy ñëw tey ba tey di wax lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi wala boog ñëw ci sunu làmb mel ni ki nag Balla gay Ndour ginnaaw bokk sunu borom bi jëlee mu wuyu ji boromam daal yëglikaay bi xëy na tey fesal leader yi waaye ci wàllum làmb muy Balla gay numéro 2 Lac de Guiers 2 ak guy gi mel ni ki nag yëg yëglikaay bi daal mu ngi leen di dànkaafu de wala mu leen di xamle daal yenu ngeen lu diis ndax nag seen combat yi ngeen jëm day yëglikaay bi daa jàpp ne war nañ koo mën a gañe ñoom wala war nañ koo gañe bokk xanaa ngir delloo ko nga xam ne nii moom moo di Balla Gaye numéro un njukkal moom mi nga xam ne génn àddina wuyu ji boromam ba tey yëglikaay boobu buñ ci continuer wala ci mbir moomu mel ni ki nag yëglikaay bi ñëw na tey fàttali waxtaan woo xam ne nii seqoon na ko père Balla Gaye Ndour ci lu yàgg a yàgg ay at moo doon Ndeye Coumba Fall yëglikaay ba nag moo xëy fàttaliwaat ñu lu ni ki noonu mel ni ki nag moom Balla Gaye Ndour mu nga doon wax carrière am fa mu ca jot a jaar ak lam ca jot a def mel ni ki nag dafa tam ak maam góor gi Njaay daal lu ko metti woon la ba taxoon na sax mu dem immigré ji loolu daal jàpp na loo xam ne ni la du ko fàtte ay combat soog am tamit ñëw na ci combat yam daan am mu metti lool moom Balla Gaye Ndour mu nga doon xam ne daal ne yam daan am mu gën a metti lool diggante mag waa Fass la mel ni ki nag ba mu bàyyee lamb ca lam jublu daal ginnaaw nekkub entraîneur baak yooya na tamit fa nga xam ne wala boobu mu ngoon ca RTS daan fa animé émission lamb ca rajo ba wala boog ca télé ba sax nekkoon fa la nga xam ne nii moom moo di ab consultant ñëw na ci lu baree baree bari moom mi nga xam ne nii moo di Balla Gaye déception yi tamit waxoon na ca mel ni ki la mu xamle woon daal moom moo di combat bam ñàkkoon ceeg ci digganteem ak maam góor gi Njaay ay regret tamit waxoon na loo xam ne daal da ko doon rëccu bokkoon na ci accident ba nga xam ne daloon na ko fa nga xam ne moo doon ca yoon wa nuy wax gaabu ba tey yëglikaay ba moo seqoon ak moom waxtaan wu mel ni ki noonu bi nga xam ne amoon na ko ci làmb mu gën rëy nee ba mu ca njëkk am kase bu ba mu njëkk am mu gën a rëy wala bi gën a rëy ci ay kasem ci ba muy bëreeg Tafa Gueye la lu mel ni ki noonu yëglikaay ba waxtaan woowa nag yàggoon na ba mu ko defee tey ak sunu làmb ñu xëy dikkaatal ñu ci dina ko fàttali mel ni ki nag fa nga xam ne nii moom moo di ca këram nit ñaa ngi fay dem di jaale ji Bombardier ma nga xam ne nii nag moom moo war a bëri ak Balla Gaye numéro 2 nee nañ démb demoon na fa nga xam ne moom moo di ca kër Balla Gaye numéro 1 jaale ji ab famem jaale ji ak njabootam moom Bombardier yëglikaay bi xëy na tey wax nu ko ca tuus ya magam ja nga xam ne nag moom la bokkal ndey ak baay moom Pape Ja mel ni ki yëglikaay bi ba tey xamal nañu ne daal tey jii nag moom la amum at fa nga xam ne moo di ci biir suuf si ginnaaw bi mu wuy jee boroomam moom tamit moom mi nga xam ne nii moom moo di Pape Dia di frère ka nga xam ne moom moo di Bombardier ba tey bu nu continuer rek li ñu xamle daal ba tey bu nu demee fa nga xam ne nii moom moo di ca yëglikaay ba nga xam ne nii moom moo di record dan fay dellu fekkaat fa Bira Sène rek ak dugam ba déem fa nga xam ne nii moo doon ca biir Léopold Senghor mel ni ki nag porte ba moom dañ ko faa téewoon mel ni ki ba tey yemuñu ca Gaston ku ci nekk rek yaa ngay gën a jox journaliste ya ay leçon di leen gën a wax daal nañ war a toogee ak na nga xam la ñu mën a liggéeyee mel ni kon tey daal loolu moo fi ñëwoon ci yëglekaay yi nga xam ne ni ñu ngi jox ay xibaar ci wàllum làmb ji asalaamaaleykum wa rahmatullah suñu mbokku internautes yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ah tey ni ngeen ko xamee nag ñu ngi mardi 17 octobre 2020 waaw tey nag Mansour moo ne ci caméra bi montage bi yàgg maar noonu lay demee ah mu mel ni ki nag fi mu nii moom ah lu waay mën a wax mooy Bira Sène moom loo ci mën a dégg maanaam départ moo di ëpp liggéeyam ndax nag passation maanaam daal joxante lenga ngay am na léegi leer na nañu nag Alioune Sarr moom mook équipe am ah jàmm comme ni ñu koy waxee nañ dem ak jàmm joxe nañ leen ya kon bira léegi moo ci des mook équipe pour war a doxal mel ni ki nag yëglikaay bi di suñu làmb ñëw na ci la nga xam ne moom la jàpp ne moo fa des wala moom la fa Alioune bàyyi ay millions la wax ah trophée ay sées ak ay tapé ak benn oto mel ni kon daal Alioune Sarr daa mel ni moom benn bor daa mel ni topp ko ci lu ñu yëglikaay yi xëy wax tey ci la nga xam ne ni moom la yore woon moo comité ba mu ko àndaloon wala équipe ba mu ko doon doxalandoon kon nag ñu ngi ñaan Bira mu réussir ko parce moom jàpp na ne défi lañ ko lancé yàlla na nga relever défi boobu maanaam relever défi bi mooy def la tuuba làmb tege fi nga xam ne ni moom lañ ko soxlaa loolu moom mooy li nga xam ne ni moom lañ la di ñaanal ba tey ci wa foofu noonu ka nga xam ne moom moo joxe lee ngay ngi koy dànkaafu moom Bira Sène ko ah di di di ko di ko dolli doole xel daal parce que xamal na ko ne du dañoo da ngeen fi dàq jàng wala da ngeen fi ëpp daraja moo tax ñu teg leen fi man dañ leen fi teg ndax dañ leen a wóolu ku leen wóolu moo leen tànn teg leen fi kon lam leen di doyee yàlla na ko def kon amin la ñuy wax rek mel ni kon loolu moo amoon dem fa nga xam ne nii moom moo doon ca fa nga xam ne nii moom moo di ca arène nationale wala boog ca stade Léopold Sédar Senghor mel ni ko daal loolu mooy li nga xam ne ni moom moo am foofu démb ba tey bu ñu continuer ci yëglekaay yi tamit li ñuy wax mooy maanaam ñetti mbër yoo xam ne ni ñoom ñoo dëkk Géejawaay di Balla Gaye numéro de Guy gi Lac de numéro 2 mel ni ki nag ñooñu moom yëglekaay bi la mu xëy xam ne daal mooy maanaam a ah fi mu nekk nii daa mel ni seen combat yi ñu jëm li leen war a gën a mën a nag euh, tey pousser pour ñu gagné ko bokk na ci tey delloo Balla Gaye numéro 1 mi génn àddina bëri ki dem njukkal maanaam rendre ko ci hommage moo tax yëgle kay bi jàpp ne ñoom seen combat yooyu ah xanaa dinañ def la tout kon pour jéem ko gagné xaw ma dina yombam du yomb nag loolu moom li ci kanam raw li waaye xam naa daal Balla Gaye moom lu ko nit delloo njukkal lu ko nit ñaanal pour man du doy parce que li ma waxoon démb rek moom lay feddaliwaat di ko wax nekk sa ko ba mu jeex bàyyi sa carrière mu jeex mu jeex en tant que sportif mais nga continuer en tant que encadreur encadrer ay nit fekk fu dara nekkul nga def fa dara loolu mooy ndamu doomu aadama mais boo fekkee lépp pare loolu pour nga def fa lu ñuy coow day jafe mais nit ki balaa ñuy xam sa valeur dëgg-dëgg ak sa niveau capacité sa yu la ko yàlla may maanaam bi mu bàyyee làmb ba ñëw di ANCAR dafa tànn ay xale yoo xam ne kenn xamu muy ànd ak ñoom ci mbapat yi di leen yóbbu ñuy bëri di daanoo ko daan ba xëy tey def leen ay roi des def leen ay champion yi ñu xam ci làmb ji kon defe naa Père Balla Gaye Ndour moom lu ko nit ñaanal du doy lu ko nit delloo njukkal du doy loolu nag li ko indi mooy mbaax rek ndax mbaax moom fu mu amul jàppal ne lu réussite bu fa amee itam du ba sunu làmb ñëwoon na ci carrière am combat yi mu dund mu gën a métti ay dérbeem digganteem ak Fass la wax kase bi mu am mu gën a seer mooy 1 million 500 mook Tafa gi mel ni kon gis nga làmb te encadré na mbër mu fayeeku pile de 100 millions te moom moomu bi muy bëree carrière am amul woon sax kase wu 3 mu encadré ay mbër ba mbër yooyu di fayeeku te mbër yi mu encadré ñu fayeeku lépp 10 millions bari na du Balla Gaye 2 kese ndax encadré les de ku ne xam na ne kasem ci lamb dem na ba dépassé au moins man nga ne fay ko na lépp ci lamb 5 millions Elton noonu ñeneen noonu ñoom soo ko sim kon defe naa kon kooku am na mérite ñu koy ñaanal rek yàlla na ko yàlla jéggal xare ko aljana gis nañ tamit mbër yaa ngi fay dem di jaale ji loolu di lu rafet loolu wan ne Sénégal ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi gis nañ le roi des arènes de Modou dem na fa jaale ji muy lu rafet a rafet parce que nag coow li mën naa bëri waaye ñoo bokk réew mi gis nañ le roi euh, ancien roi des arènes Bombardier tamit dem na fa jaale ji te pourtant terewul mook pulem ñoo war a muy Balla Gaye 2 mais xam ne lii ak lee du ñu benn lii tiis la naqaral te bu amee xam ne ñu di ko waxaat euh, Bombardier moom tamit defe naa ne ku ne xam ne ne frère tey la am at ci kaw ci biir suuf muy Pape Dia ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko xare ko aljana moom tamit ak bépp julli bu mu fa fekk ku ko fekk rek parce loolu mooy àddina kii di Alioune Sarr moom bàyyee bira seen bu set wecc boo xam ne amul benn tilim tilim kon loolu mu ko bàyyi nag comme amul tilim tilim comme niñ ko record waxe yàlla na yàlla dimbali bira seen tamit ba ñoom it ëllëg bis bu ñuy joxaat lenge yi kañ koy jox ñu bañ ko jox copie bu am benn problème bañ ko jox copie bu tilim mais jox ko copie bu set wecc comme niñ leen ko joxee waaw parce loolu moom lañ leen di ñaanal di wax ne kon daal tey loolu mooy li fi dikkoon ci yëglikaay a gaal du solution man de loolu laa gis man Babacar jàpp naa ni dugg gaal ne da dem Espagne du solution nañu jéem a rek xool nañu mën a def pour mën a am dara ci réew mi wala boog ñu jéem a jaar ci aw yoon wu légal pour jéem a dem bitim réew bu fekkee fa la suñu wërsëg ne waaye daal gaal moom wax dëgg yàlla lu doy doy waar la di ñaan ñi ci faatu yàlla na leen yàlla xare aljana ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ci rëcc tamit yàlla na leen yàlla ubbi seen xel ubbi leen ay xéewal ba ñu mën a lu ñu fii parce que loolu moo jara ah borom mbég mi comme ni ñu koy waxee def na ko ci ndax gis nañ mu def ci déclaration dànkaafu leen tere leen ko yemu ca jël na la nga xam ne ni moom moo di xaalis yóbbu ko ci famille jox leen ko dimbali leen ko defe naa ne moom tamit taxawaayam wax dëgg yàlla Sénégal yëpp ñu ngi koy rafetlu gis nañ tamit xalifa Medina Baye Niass bi wax ci kon ñu ngi ñaal suñu xalifa yooyu yëpp yal na yàlla defal gudd fan ak wér gi yaram sëñ Babacar Sy Mansour ka ca Njaasaan lew na ba ci jàng bi duñ fàtte kenn di wax ka ni Sénégal daal yàlla na fi yàlla def jàmm rek kilifa yi réew mi tamit ñu gën a takku gën a farlu ci liggéeyu ndaw ñi ngir ñu am lu ñu jàpp ndax nag sa mbay a ah, am na loo xam ne nii fas boo ko yewee ci wanok joxoo ko lekk ngooñ joxoo ko ndox joxoo ko naan bu yàggee dana nga xel de te bu nga xelee lam lay laaj mooy damaa bëgg a lekk kon loolu nañ si bàyyi xel bu baax a baax a baax Mansour di la bëggee <laughs> borom borom bawa baab <laughs> mais mais yaa ngi sport Mansour del sport waaye man ni ngay taxawee neexuma dara waaye dama bëgg góor guy taxaw taxawaay bu dëgër mais matu moom ne na xale la moo tax amagul jëkkër ma ne ko xale yi am jëkkër matu matu heure bi nga war am borom kër heure bi a baax xale bu ci tolloo la ñuy soxla mu am borom kër di ñaanal ñëpp jàmm tonton Diaw borom ADN le futur maire des Sasalim maa ngi koy bëgge moom tamit yàlla na jàmm yàgg